waxna asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. alhamdulilahi rabbil alamin allahuma salli wa sallim wa barik ala sayyidil awwalin wal axirin sayyidina wa lana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa xulafaihi wa xadimihi wa man hada bi hadi yawmi diin ndax ku faale wul xaadimu rasul doo faale rasul te xaalewul rasulullahi yàlla génn ci yow te ku yàlla baax loo ma koy doyee. xam nga débat bi fi am Sénégal man booy wax ci acti actualité bi laay wax rek li fi am Sénégal duy wax sama mag a gën sa mag kenn du ko wax kenn. mag mii laa àndal moo gën sa mag mii. kenn du ko wax nit genn kilifa bokkuñ tariix ay ñoo bokk jullit yi bokk mbokk nee na nit kenn du ko xeebal kilifaam kenn du ko xeebal bisam bàyyi Abdul Aziz si siñoor moo ko doon wax kenn du ko xeebal yitteem te ab addis la addis la addis la tekki rek ci wolof waaye bu ma nee ku deful sëñ Touba diw defoo ma diw du wax ju tàng noonu rek laa ko mën a waxe waaye képp kuy wax ashhadu an laa ilaha illa wa ashhadu ma muhammadan rasulullah jàpp naa ne yow murit nga ndax li sëñ Touba wat ci nga bokk te maam biñ mujj a fekke ci doomi sëriñ Touba muy Cheikh Saliou Mbacke Maulana yal na yàlla gëwëral na ko neewoon na lu lu yaatu man duma ko xatal te sëñ bi daa yaatu kon ñëpp Sénégal ay murit lañ ci li ma gëm ñëpp murit lañ dafa am nag ñu miinu tuubaa ñu miinu Touba nag du tee ñu du mu parce que murit mooy iraada yoon yëpp ñu ko sëñ bi waxee ma leeral ko yeneen mag ñi bind ko benn pièce rek bu tuuti moo ci ne suñ média yi nit ñuy def loo baaxul baaxul di te xewutoo nit te moo indi problème yi parce que sëñ Abdul Ahad bii fekkee Sëriñ Tubaa nga xam jàng gës boog mu waxaat di maatag raaya ñëw ñun la faaw nga waxtaat imaam Alaaji Malik mais foofu la problème bi ne te télé yi ñoo la koy imposé ne la di nga wax ci kii xam naa koñ ci dàq émission bu mu war a def ñu ne ko ndax xam nga kilifa sàngam mu ne ko dégg naa ko de ñu ne ko faaw nga wax ci mu ne kon ma fan ba bëgg a deeti li mu soob semaine bu ne mu bëgg ci wax sëriñ diw juddoo Touba yaroo Touba màggee Touba jàng téere yi sëñ Touba yi nga bëgg maa waxloo ci beneen kilifa loolu may naa du naa fekk nag tàccu leen loolu waaye buñ ko noon yow waxal ci Serigne Touba mi nga xam rek lum nettali sëriñ Touba kenn du ko dégg dar say nopp ndax Serigne Touba mos sa wax kenn lu ñaaw Serigne Touba mos sa gaarawaale yow mi jàng téere mu ne bu ndaw la demal ca Masalik bi mu lay wax sàq xam-xam lu mu la wax bu ko wët ngir bëgg daraja bu ko wët ngir ngir werante bu ko wët ngir rëbb nit ñi. bu ko bëgg bu ko wut bu ko wut ko ngir xam yàlla jaamu yàlla kot lay jariñ kooku nett boo xam ne nga tooñ kenn saa boo déggee xaala laahu xaala rasulullaahi Cheikh Ahmad Bamba nee na mu naqari nit kooku du jullit mbindam gisoo ci fenn fu mu waxee kenn kenn kenn kenn loola dérange noonu yi àndal sax xoon ñu tooñ ko yóbbu ko ba mu dikk dane ñoom ñoo waroon a nettali dégg naa ko juum nag ne sëñ Tuubaa bañ na ko daa bind moom fi mu jaar fépp ci géej gi benn saas sama baa sama wëllëre la waaye li mu wut noonu sëñ Tuubaa saltoonu bind dana ñoom ñoo waroon net li sëñ Tuubaa li doon bind tagg yonent bi ak bàkk yàlla ak wax may yim ko may ak li ma am loolu may xas gi day salaat sitta bi mat sitta talut net li lim bind fii yëpp boo dégg la wax ca garam basaak la wax galwaak la wax la ko fa yàlla may lay wax may na ma fa lii may na fa lii waaye néew fa naan maag tubaab bañ defee lii bañ waxee lii bañ def lii bis suba ba ngoon dañ ko daan tooñ bu suba ba ngoon bu ngoonee mu yendoo leen a baal bu guddee ñu koy tooñ mu fanaan leen a baal talut nett li ndax lim doon defal boroomam li fi gën a ko néew ci tiw euh, sëñ Basiiru bi ak ak ak jawaab Abdou yu tuuti la yuñ ko laaj yu dajeeg jamono laaj ko waaye sëñ bu bindoon fi mu jaar ak ñoom ko gis tubaab bëgg koo roy duñ xajoo tubaab te moom daa xajoo ñëpp ndax jaami yàlla yi yàlla leen bind waaye liñ ko xor ñoññar liñ ko def talu koo bind bëggut sax mu di xam ko déggoo dafa ne ñoom ñoo waroon a net te yàlla leen yàlla may dund lu ngeen gën a dund muy gën a génn ndax ñoom dañuy bind dañoo fonk ay art chiffre waaye liñ ko def ma ne mas ngaa liir ne wàcce nañ ko parent dafa léegi ko hélicoptère ba ko sànni ko man def nañ ko ko de boobu ko ko nettali ñoom ba noppi di ko wëraat ba gis ko di ko yóbbu ah sànni nañ ko géej gi di ba ma ko ci bato xam nga ñu bari dañuy maa ngi nuyu waale soxna sooru xoodu kumba ñoom yëgaloon naa ko ndax bëgg bëgg sëñ beeg soxna jaara ak naa dafa am ngànt waaye ko bëgg baax la ñooy dafa waa julit géej gi hmm. si yëpp laat mais xam nga ne sëñ bi bi mu sànnee der bi géej gi ak biñ ko bëmëxee bokkul ah dégg nga arab tuuti famal yul xi nii famal yul xi nii ah, kon kay sànniwut bopp du boobu de tubaab bee nett li foo man yul xi nii fil bahri raw man li xurba faat jaa ni fil bahri raw du kullu ay lamin mais biñ ma bëma xëy géej ak bi ma sànni bokkut kon biñ ko bëma xëy ah, ñun bi ñu sare bare mooy bi wàccee géej gi ak yu bare bare bare bari Cheikh Moustapha mi doon wax waajuru ki nga xam ne borom guddi gii soxna jaay laay lañ ko tuddee woon tuddu ne reeru soxna amit loo waaw noonu la ma ñëwee rek te te li ci am solo mooy daje bi waxtaane ku baax ci leer ya ñu naroon a foy bañ a foy ñu gisante ñu na moon namante konte déglu xasiida mu neex déglu sikkar mu neex sunu ruux dund te dal mënut am loolu rek lañ jubloo loolu ni ñu ko tuddee baax na reeru soxna Amadou Lo maa ngi ko jëlee ci moo njëkk mooñ cere lay taalaali jox Serigne Touba mos sa sol gaalaali sëñ Modou Ndiaye ngaral dem naa du ma weddi defe naa ku tedd ki daawut jëfandiku rawatina lu neex jëfandiku daana toog ba xam xam du xam kañ la ko gëj def toog ba fàtte kañ la gëj a waaw li doon wax àgg suuf jëfandiku ñam daana dem ba fàtte ko rawatina nag lu neex soxna si bi ñëwee ci yitteem jooju may wax ak baaxam gi maa ko doon wax léegi ci biir am ñu ko xawa ñu ko déggut ndax weddi weddi ci xam-xam dafa doy waar sëñ bi day wax ne sëñ bi nee ne weddi lii nii loo peege nii ngay weddi comme programme weddi bu ci dugg programme gëm moo gën yomb weddi lii xool naa ko wedd yépp biir ak biti wëlbati ko xam naa ko mën naa ko weddi boo ma ne kayit bii daa xonq curru man la du dëgg dama ko peeg sëñ bi neen loo peege wut noonu bu ko weddi nit ci problème mu gëm la am problème mais weddi moom dafa dansere nitu yàlla def na lii def na lii def na lii def lu kàttanu yàlla mën a def rek boo ko weddi nitu yàlla te Sénégal loolu rek la ñuy werante man de nangul naa ñëpp féete sëriñ Serigne Touba xajoo ñëpp te diine moo nu ko sant sun diine jiit lislaam julli yeeg woor yeeg yëf yi moo ci gën a tuuti ndax yëpp yow lay dellu xam nga ñi ñi ñu gëmut diine sax bu ñu xëyee def sport wala sport dañ koy mu <laughs> Moussa Thion mu ci daj maa lànk ak mënuma ko <laughs> surtout léegi waaye boo boo takkoon samay bët wàcc yom France ma lijjanti ba lekk naan julli dem xam xib yëpp rek <laughs> waaye gis nga gis nga ku xëy suba dafay sport pour lan ragal suukar see gi fii ak feebar mais julli boo xëyee ñaar ràkk yi ngay jëkk julli ak ñaar ràkk fajar ak ñaar yàq boo ko jullee ba noppi ak bis ba nga ko julliwul nga xool gis sa yaram li muy nga xam ne kon lu baax ci la lu baax ci nit la woor mi entretien yaram bi machine bi nangam nangam nangam lu baax ci nit la aj màkk tourisme la nga xamanteeg borom parce que comme yàlla nee woo woowu ma fi fàqiir ñoo am xaalis rek ñoo fay dem nga xamante ñoo am xaalis léegi am xaalis li sëñ Basiiru Jaxate doon wax benn waaye daf ne ab sëñ Abdou Aziz Abo maa ngi koy sant di gërëm neen sëñ Abdou Aziz Abo dafa tabe waaye amul xaalis hmm. wax na dëgg mais xaalis ku ko bëgg da koy wut man wutuma ko te àddee mënta faj soxla seen sëriñ yéen wax dawaa ma sukkuri màggal gi mbuñu màggal bi ci topp bàyyi ko dubee daf ko wàññeel xaalis bi muy nangami million mu ne sëñ bi li lii ñëw ceew mën naa faj soxla da nga may wutal li ñuy wax procuration moo defe xaalis demee def xaalis bi ca banque ba te ci retiré saaboo boo soxlaa ma jël jox la nga faj soxla moo gën ngay laaj ay cent mille francs ay deux cent lii ñëw ceew ay million la mu ne ko d'accord ñëwee Dakar nga ñëw sëñ ba am fa fukki fan juróom nangam ba gàmm gi jub mu ñu alaaji Babacar lu mu tudd mooy bàyyi code bee sama soxna soxnaa ma nga ne soxna Xadi Baak mu ñëw mu ne ko sëñ bi la ma la waxoon laa fàttali xaalis bi laa bëgg nga jox ma ko mooy bële ko banque ba dencal la ko fa mu commerçant la sëñ bi ne ko waaw soxna Fatou Sarr benn tante yàlla may ko tëddaay bu neex waaw Fatou Sarr bi ñëw mu ne indi koofar mu indi umbo bi mu fekk ci quatre cent mille francs te ay million la waññoon ba takk mu ne sëñ bi ana xaalis bi sëñ bi ne ko alaaji ana xaalis bi <laughs> tàccu mu ne ko dama lay yeer yow saalum saalum nga xaalisu àddiye du mattum lobb dina am problème nag parce que ñi fii déggatuñ wolof déggatuñ tubaab dégguñu arab mattum lobb moom nu ma koy firee ba gaa ñi xam ko problème la sëñ Modou noo ma ciy dimbali mattum lobb ñi xamuñ ko de déet moom kay bi mu wutal baat bu ma moderne bu ko jegee rek mattum lobb euh, ñi ñëpp ne à Dakar la waaye ñi xamuñ loolu <laughs> ñun waa mattum lob mooy yow njaago nga dégg wolof xam nga mat lob lob bu mooy bàyyi fall tubaab bi bokk na lim ñu yàq di làkkam woow munu jox ba bañ jaxasoo suñu làkk ba déggatuñu làkk bokk na jàngoor yi ñu war a bi da nga wax wax wolof wala wax tubaab waaye gone yi fi nii wolof bi dañ ci boole tubaab boole ci anglais boole ci nangam ba ci nuyoo yi sax dañ ci boole nuyoo yahud nuyoo nasaraan nuyoo julit yëpp xam nga nii fi mu ne nii nuyoo yahud la nii nasaraan la ah yow te yow jullit dañ la ko tere nii ngay def boo ko ci sore wala nii waaye nii ah. jox nañ seen lakk jox nañ seen seen jikko te se lu mu musrikiin la yoon ti waxoon waaye mattum la bu daal mooy xaalis boo denc banque rek ci misaal ndax bu matt amee dangay ngay taxan lu bari def ko ca gannaaw kër gi di ca jël tuuti tuuti mooy lobb ba nga ci jël tuuti tuuti di jëfandikoo bu taw bi ñëwee nga man koo denc ba du yàqu nga am matt ndax du waxtu wane matt am mooy lobb bu doon tey nga daal mooy compte bancaire nga defa 100 millions di ci jël par di 5 millions teg ci kër gi matt met day bari ca àll ba nga ca jël di teg di ci kër gi di jëfandikoo mooy lob mu ne ko mat xaalisu àddiya du pour lobb pour jaaru la mattum jaar xam ngeen jaaroo wallaahi ñi xamuñ jaaru de mattum jaar jaaru mooy bu sedd ba sedd nga taal seminé mu tubaab bi wax ah waa matt moom ngay taal nag xam nga du bari lu mooy mattum addiya moo tax ñaar ñaar Sénégal fayuñ leen ñaar takk der yii kenn fayu leen jàngalekat yi kenn fayu leen ah dafa metti di jàngale li ma bëgg a wax rek maa ngi ciy bëgg a dee <laughs> mattum jaar sëñ bi ne ko dama lay jàngal xaalisu addiya mattum jaar la du mattum lobb bu Ibra Cuun bàyyi Ibra ñëwee may ma cent mille fekk maag ab laat soxla cinquante mille di ko xaar ma jox ko cinquante mille ya kee jox ko mu jàll jàllale la ñu jox lant noor na nga ciy jaaru rek parce que faaw nga yëg tàngaay bi ndax jaar na ceew waaye du li ñuy lobb di denc addi ku ko lobb ci banque yi fajoo ko te sax da dut bari addi xanaa xalif général murit te ku fa ku fa toll lay ñëw la may bare bare bare duutoo ko yëg ndax ku sëñ bi dugg cew nga fees te ko fees ak yàlla soo soxla xaalis moo tax sëñ Tuubaa ñun fàgguluñu ay millions ak milliards lim nu nag da koo dàq tontu kooku ne xaalis xam lu mu nu fàggul xaalis ci guddi te saa buñ dajee naa la koo may xamal tax sëñ Tuubaa danoo fàggul barke barke yi gën a yomb moo gën a neex barke mooy loo soxla mu faju te doo lap doo fen doo sàcc doo gore du doo firfiri sa fit du fi mu ne yaa yorelu ma kenn bor macha allah ah bitig may jox dépasse te xam naa ne <laughs> fii fukkaat moo doon jël dépasse moo koy jox ndax xam na ne naa ko fay. parce que da ci bénéfice ay benn benn laa ko jox ay benn benn la may jox ma koy jox pari fukk ah. benn naar mas na ma ne ndeysaan sëñ Murtada daf ko defal lu baax daf ko dénk 200 millions xaalis bi jëmoon ci école mi ñetti at ñu am lu ñu seqoon mu ciy waxtaanu moom ne ma sëñ Aziz ma ne ma mu ne ma da ngaa defoon dama dof ma ne ko dee lu tax mu ne ma sëñ Mourtada daf ma lebal teraanga moo tax ma defal ko lii. ma ne ko lu ma defal mu ne ma daf ma dénk deux cent millions ñetti kon daf bëgg ma am li ma wax pourtant mun Mourtada xam na banque bari xamal nañ ko koy te deux cent millions bu ko dencoon banque bi doo nga intérêt dara la ah sëñ bi nag fàggaluñ loolu li mu ñu fàggul mooy barke. te barke boo ko yëgee duutoo bëgg xaalis teraanga ngay bëgg barke mooy loo soxla mu faj waaye xamoo fu mu ne sëñ Tuubaa dana fàggoon naa leen yii li Basiir doon wax wax wax na dëgg de bokk ci sëñ Tuubaa di roy mag ña naan jaay naa sama njur ak jënd taalibe erreur bu mag la bàyyil ba àgg niveau ba ñàggoon man a jaayagoo ma dara ndax maa wóoru song murit dëggantaan la ak dee sax buñ ma baal delee murit saadee ba noppi <laughs> man sax waaye yow dafa yomb li taxoon nit ñi bàyyi seen kër ndey ak bàyyi di murutu ba faatu ca daara ja ñi am fa fanweer at ñi am fa nangam at nga xëy sama jébbal nag na murit saadix laa naan jaay naa sama njur ak jënd ak taalibi ci làmmi sëñ bi sëñ Tuubaa woote wutoon fo woote wutoon campagne soxla wutoon nit ñi nit ñee bëggoon mucc ci sawara bëgg àjjana bëgg ci xéewal yàlla yi tam yor ko ñu ñëw wut si ko fa waaye du fa de yomb wut noonu de jébbul naa rek àgg naa ah kon maam Cheikh Fall li mu dajoon coonaam boobu kon jëru ko ndi maam Cheikh saa jenn ñoom dañoo doxoon daj maam Cheikh ànd nga góor nga mag ñooñu sëñ Modou Ndiaye ngi daan wax Cheikh lu ñuy defal sëñ defal na ko ñeen ah seen coono boobu kon ah bi loolu yombiwut noonu nag.